salaamaaleykum suñu mbokku internet du Sen Teranga TV kontaan ci topp bi ngeen ñi topp alors comme ni ngeen ko xamee rek euh, déggoon nañ ko doon nañ leen ko wax sànq ci xibaar ni nga xamante ni moom mooy buur géwal du ñàkk dinañ ko am téléphone comme xam ngeen ni euh, jot dafa xaw a jafe euh, salaamaaleykum buur ñu ngi lay nuyu baax a baax. Euh, mais buur euh, du ñàkk nag xibaar bi yëngu ko comme tout tout mooy Lac de bi nga xamante ni dem procureur da ko yóbbu mandat dépôt dem mu fanaan guddeem mu njëkk rëbës ban appréciation nga am ci loolu en tant que acteur de la lutte. bon xanaa Ousseyn da. allo allo. nuyu di nuyu public bi topp seen Mhm. u euh, di ndokkeel direction bi yëpp ci liggéey bu rafet bi ñuy def vraiment. Mhm. Ah, mbir mi nag ni ko Sénégal yëpp yëgee wax dëgg yàlla laa ko yëgee mais xam nga mbir moom bu ne teel am. Mhm. Euh, te comme ci loxoy yoon la nekk. amul kenn ku ci mën a wax wax bu leer wax dëgg yàlla yoon bi. nee naa ñi ma ñuy wax ña ku ci nekk da ngay wax rek pour se faire voir loolu amul njëriñ. à l'égard ñun biñ koy xam ak léegi yàgg na man wax dëgg yàlla dajab relation personnelle man ak moom bokk nañ ci joué sax ay sketch yàlla xam na ko. Mhm. keroog bi ma demee signature mi sax sama téléphone bi bi mu ko yëgee daf ma yëgal ba seen kër yëkkati xaalis bari jox man dama demoon ko jënd mhm. mooy lu waay mën a wax ci moom li nga mën a wax mooy nit ku lewet la nit ku am yar la sincèrement pardon. donc nag man sama xalaat mooy li ko dal natt rek laa ko jàppee wax dëgg yàlla ndax loo xam ni la. munuma taxaw ni moo def wala deful yàlla rek moo xam ndax xaw ma lan moo xew ci mbir mi exactement donc li ñu mën rek mooy ñaanal ko ak su ak soutenir ko mhm. man làmb am na ku ne man làmb am na kilifa ku ne mhm. donc ñi ci war a taxaw nañ ko taxaw rek xam ni tey li ko dal jombul kenn mhm. muy man muy samba Sakam suñu président de la république moo ci kaso bi dem palais kaso jombul kenn quoi. day mhm. wax dëgg yàlla amul kenn ku la mën a wax ne la mbir mi nii la demee ku dul yàlla ak ñoom ñu ko séq ak xëj na ci yoon te yoon ñeewul diw moo def wala diw defagul. Mhm. dañ ko dañ ko mettre sous mandat de dépôt. mandat de dépôt nag signifié wul ni que yaa def. mais présomption d'innocence bi day. voilà voilà ba tey dafay am donc il faut qu'un procès am. Mhm. un mën a am. ñu nga soog a mën taxaw ci question ne moo def. Mm-hmm. mais yàlla lu moom lu ci wax ñe ku ci nekk da ngay wax amul ci ñun ku xam lag lag actif ah. mm-hmm. amul kenn ci ñun ku mës xam ñàkk fayda wala nga xamal ko koo xam ni léegi mu def presque plus de trente ans ci làmb mm-hmm. te lu mel ni yaa ngi koy soog a dégg ci moom pour la première fois kon da ngay jàpp ne que il n'est pas un habitué des faits sincèrement parlé nee naa moom ñun dara tënkuñu suñu amoon benn antécédent bu ñu ko xamee ci yu mel noonu bu ñu ciy wax it lañ koy waxee mais wa dëgg yàlla du man du sama morom du kenn ku nekk ci monde làmb ku ko mës a xamal benn antécédent boo xamante ne que demee na lu mel nii. Mhm. waaw maintenant nag nañ ko taxaw ndax bu ndox tuuru an bàq rek fay des. Mhm. donc nañ ko taxaw rek loolu mooy dëgg. Mhm. mais est-ce que gisoon c'était c'était à éviter d'autant plus que c'est vrai que euh, moom ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyam wàllu làmb la. ak lu ci munta nekk nekk nekk nekk tuuma bi rek dèjà am na lu muy def ci effet négatif ci côté lamb waaw xam nga Ouzin boo nee c'était à éviter kon dafay mel ni que yow dèjà inculpé nga ko ba pare mhm. mooy amul luñ fi éviter ak luñ fi ñàkk éviter mooy li am maanaam ñu koy tudd ci loxo demal ten dikk bi maanaam tukki bi ko en fait visa man ni man ni buur léeg-léeg ñu tudd ci loo xamante ne amaana man lu ma ko sax yëg <laughs> la du dëgg man muy yow muy keneen ak keneen keneen mm-hmm. donc tudd ko ci taxul mu def parce que ba am na ñu fa tëdd def fukki at te lañ mm-hmm. leen tudd bi taxul ñu def ko dëgg la donc moo tax man la pour waxee ci maanute te yàlla tax mm-hmm. mooy yow muy man muy keneen ak keneen amul ki ku mën a teg sa baaraam ne liñ koy jiiñ moo ko def wala def ko yàlla rek moo xam ak ñi ko settal ak yoon bu fekkoon dañ naan c'était à éviter day fekk nga mës ko ci dégg. Lac Guiers 2 kenn mës ko dégg ci yu mel nii. Mm. muy man muy kenn ak keneen ak keneen te rek ci làmb lañ ne. lu ci nekkoon wala mu ci yëngu danañ ko yëg ko ñu xam ko te bu waaye bu ñuy wax it dañuy wax suñu yàqu laay taala. Mm-hmm. kenn tënkuñu quoi. donc mm-hmm. ku ci wax man biñ ma wooyee dama leen du ma ci wax ndax aw ma lu ma ci wax wax dëgg yàlla. mooy aw ma ci benn preuve mm-hmm. xaw ma est-ce que moo def wala deful. Mm-hmm. mais daal ma xam ci moom sama diggante ak sama borom. Mm-hmm. mooy la première fois ma dégg la guerre ñu tudd ko sax ci yu mel nii. sincèrement parler waaye waaye effet négatif bi muy am ci euh, regard des autres surtout côté lamb ji xam nga lamb ji mm-hmm. dañu xaw a weex donc salaamaaleykum ñu ne lamb ji lamb ji est-ce que lii du. am tuuti non non Ouzin problème bi du problème mu làmb ah. mais acteur acteur acteur lamb la moom. mais dara problème personnel la ah. problème personnel nag mënuloo ko. mënuloo ko boole ci une communauté quand même. Mhm. loolu moom mu ngi mel ni Ouzin tey def nga ni waa kër Ouzin. Mhm. fekk na Ouzin bon moo def loolu sànqalee di di nga gis imam jur koo xam ne maréchal yi. Mhm. gis koo xam ni maréchal yi jur koo xam ne wali da donc mais lii ñu koy tudd nii amul benn impact bu négatif bu mën a def ci làmb. parce que ñun waa làmb on est conscient. mooy xamaluñ ko ko gisuñu fekke wuñu. wóoruñu est-ce que moo def wala deful. Mhm. balaa ñu dem nag yoon da koy àtte ba teg koy daan ñu naa kon de lak moo def wax dëgg yàlla wala nanga wala ku ci ne nga ci sa appréciation. wala mhm. yoon àttale taxul nga def wax dëgg yàlla am na ñu yoon àtte leen te defuñu. Mhm. mais selon ah, mais selon yow ban taxawaay la ci làmb war a taxawee surtout ñi nga xama ne association des euh, de lutteurs en activité. ban taxawaay la ñu war a taxaw parce que bu waree dem procès forcément dina taxaw te bu taxawee dinañ ko jàppale au moins. bi affaire bi amee ba tey démb waa làmb toogul. Mm-hmm. sincèrement. Mm-hmm. ku ci waroon dugal sa doole dugal nga sa doole ko war a teew teew nga. Mm-hmm. sincèrement parlant ah, man yëg ci ay actes de générosité yu bari yoo xamante ne que. ay nit làmb ñoo ko def. te bañ koy def xool ci la gànnaar dañ ko def parce que nit la. donc nag war rek mooy li ci des ko parce que fi tey ku ko ñaanal yàlla la gën a soxla ak ku ko aussi waa làmb duñ ko seetaan. Mhm. Euh, euh, allez-y. waaw mooy waa ah. làmb duñ ko seetaan noonu c'est sûr et certain. waa làmb ko duñ ko seetaan xam naa eh, eh. Euh, comme dama la fekkoon ngay waaj a nelaw ma yee la. Euh, yàq tey nelaw moo tax mais am na benn sujet bu ma ñor trop te xam naa certainement on aura le temps waxtaan si muy Aziz Ndiaye bi bëgg a créer ab roi des arènes fait à part loolu ñu jàpp ni c'est de l'égoïsme ñeneen jàpp ñi mbiri soxor la lan mooy problème bi Aziz en fait lan la buur jaaxal na ma trop ah. Aziz ci ci maan lépp lu xam na ko lépp lu muy def xam mais mais mais mais CNG dans tout ça. waaw xam nga CNG affaire moom yàgg na fi ëpp na trente ans. Mm-hmm. benn benn baaraam nii ñu koy xoolee lañ koy xoolee te il est bu fekkee ni que ñoom lu ñu formaliser ko. Mhm. régulariser ko dañ ko war def aussi. mooy ko war ñu bàyyi rek mu nekk benn affaire boo xam ne parce que tey amul benn roi des arènes bu fi woowee roi nga nekk roi des arènes parce que du titre bu ñu structuré quoi en fait. Mm, wala bu ñu légaliser quoi benn titre la boo xam ni ñaari bër ñooy daje kii daan kee ba mu ko daanee jox ko kee kee daan ko kee kee daan ko kee noonu lay demee mm. donc le CNG war lu mën a bàyyi coow li di presque ëpp na trente mhm. donc bu fekkee ne que ñoom dañu jàpp ni que war nañu créer. Mhm. lu mel ni benn couronne royale képp ku mu tàbb sa say loxo kon ñu naa ah kii kat moom mooy le vrai roi des arènes. Mhm. mais amul fenn it Aziz Sagna créé titre am aussi. non mais est-ce que est-ce que c'est c'est élégant est-ce que c'est galant. Eh, eh, parce que loo mënta bañal bañal sénégalais nangul ñu ko mooy roi des arènes. non xam nga xam nga Ouzin. tey lépp lu amul formalité mun am éloquence. mooy amul dara lu ci jaadu. Mm. mooy groupe des arènes yi fi jaar yëpp la benn manga lañ fi ba se considérer comme roi mm-hmm. yëpp ay titres yu ñuy créé la ak yu nangam nangam nangam mm-hmm. amul techniquement amul bokk amul genn ah. Mm-hmm. bëgg a def Aziz li muy visé xam na ko ñun ñëpp xam nañ ko mooy lépp lu ñu mën a am ci àddina mooy beneen ultime. Mm-hmm. combat diggante Balla Gaye ak Modou Lo moom la ñu bëgg. Mm-hmm. moom la ñu bëgg te loolu la ñuy aussi. Mm-hmm. loolu am nañ ci droit parce que sañ nañu xëj na ambitionné ak yu mel mais pour man gëw ma ni que débat bu débat bu très intéressant la. yàlla xam na. macha allah mais mais dara ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëf xam naa du ñàkk di nga ñëw suñu plateau yi nag quand même. waaw incha allah ñaan jot am rek. waaw léegi moom léegi yow amoo jot. man de doom maa man doom maa yéen a yem man doom da ngeen daw dépense may daw jot. buur mais yow xam suñu toos gi dafa yàgg du tey. yàgg nañu ah. sonal di la fekk sa kër di la jël mais également di la woo téléphone tout le temps vraiment et tu es disponible aussi. non mais noonu la yéen ngeen lépp lu ngeen def dama ci war a jàpp loolu mooy sama rôle. dëgg la. waaw ah, en tout cas. Eh, dafal ñaan ci seen teraanga. non seen teraanga day dem itam seen teraanga teraanga la teraanga dem suñu borom la. Eh. day dem de ñoom si wër bagage de Malick Touré xanaa moo fa nekk benn booy bi <laughs> <laughs> <laughs> mu nekkoon euh, buur géwal moom lañ doon seexal waxtaan bu gàtt rek ñëw na ci ni mu gën a yaatoo ci euh, mandat dépôt ki nga xamante ni mooy Lac de wax na ni làmb seetaanuñ ko euh, wax na ni làmb turu làmb du ci làmb maanaam turu làmb du ci du ci tax Euh, que ñi ñeen jàpp ne làmb turam da ci da ci laale nee yoonu làmb nekk si affaire personnelle la donc également ñëw na ci affaire wu li nga xamante ni moom mooy Aziz Ndiaye bi bëgg a tewaxal beneen roi des arènes nee moom roi des arènes boobu c'est juste pour préparer Balla Gaye Modou seen troisième combat mu nekkoon seen réalisation bi